soccu ndax day leeral ab gis di setal gémmiñ di rey ay microbe yu ne ci bëñ dentifrice yeeg yooyu yëpp tabarkalla baax na waaye li socc man yooyu mënu ko ndax am na yooyu ne ci bëñ ci desiti ñam yoo xam ne la ca socc man lu dul socc mënu ko ca socc rek moo ko man loo borosu borosu borosu rek boros bi munta rey sax yu sew yii ne ci ay bëñ te nit du ko gis xaw ma nañ koy tuddee waaye noonu lañ ko mën a tuddee ci olof socc rek moo leen mën a rey moo tax socc nekk luñ bëgg lool ci njàpp te it njàpp li am socc moo gën fuuf njàpp li amul socc waaw seytaan nag moom mooy fexe ba récupérer socc yi nit ñépp indil leen benn socc ay soccoom moom nag ay soccoom da ngay kos almet teg ci di ko ñoddi muy yàq say bëñ tabarkàlla di yàq sa xol léeg-léeg mu def lak sëqat ba pare yàq sa xaalis moom soccub seytaane boobu yi tabarkàlla te nag nit ñi moom lañ gën a bëgg ndax bu dee ci biir nit ñi boo ko taalee kenn du wax dara waaye boo nekk ci biir nit ñi socc ñu ne la saawaay tegal del socc beeg socc ci biir nit baaxut soccub seytaane moom tabarkàlla dafa seer nag da ngay dem ci bitig bi ne jaay ma nangami socc am na socc bu tudd Marlboro am na bu tudd neneen tabarkàlla nga jënd leen di socc amaa socc yonent bi alayhi salaatu salaam moom ñaar dërëm lay jar moom dafa yomb lool te baax te it boo nekkee kuy sol tubéy ba sa geñoo dagg ci àll bi ci ngay xam ne socc bi yonent bi moo gën socc bi seytaan bi ndax socc bi yonent bi moom mën naa ñor sa tubéy ji waaye socc bi seytaane bi moom mënut a ñor sa tubéy tabarkàlla moo tax socc daal am na solo lool ci mbir bi muy ñaareelu nga ne lii wa zaidu ak dolli ala darbatil ula ca ragg gu njëkk ga fil wajhi ca kanam ga wa zaidu ak dolli ala darbatil ula ca ragg gu njëkk ga fil wajhi ci kanam gi maanaam bi ngay sëlmu raxas nga benn yoon soo ñaareelee soo ñetteelee yooyu yépp tabarkalla ci ngëneel la bokk soo raggee benn rek def nga farata soo ñaareelee soo ñetteelee yaa ngi ci li nga xam ne mooy ngëneel yi te nag lu am solo la wal ya day ni ak it ca ñaari loxo ya bi nga raggee sa loxo ndeyjoor benn yoon loola mooy farata waaye nga dolli ko muy ñaareel nga dolli ko muy ñetteel yooyu ngëneel la dafa baax lool tabarkàlla loolu mooy ñetteel bi wal bidaayatu ak tàmbalee ca ba ngay masaa bi muqaddami rasi ci njëlbeenu bopp bi maanaam fi kawar gi tàmbalee booy masaa foofu ngay tàmbalee waaye doo tàmbalee ca digg bopp ba doonte sa bopp dafa leel tabarkàlla yaa ngi tàmbalee ci njëlbeenu bopp bi teg ci say baaraam xëcc ko jëmale ca ndong jëlewaat ko ci ndong indiwaat ko ci kanam wal bidaayatu bi muqaddami ras tàmbalee ci njëlbeenu bopp bi loolu bokk na ci ngëneel yi mooy ñeenteel bi wa tartibu sunani ak toftale sunna ya sunna yi mooy ya ñu limoon léegi nga leen di toftale loola ci ngëneeli julli la bokk ah ngëneeli njàpp la bokk mooy toftale sunna yi nga xam ne dañ ko tuddoon léegi ci ginnaaw sunna ba jiitu tege ca ba ca tege tege ca wa xillatul maa i ak néewal ndox mi alal udwi ca kaw cër ba loolu ci sunna yi la bokk néewal ndox mi ca kaw cër ba sooy jàpp doo def ndox mu bari ci say cër tuur satala gi ba fi ngay jàppe tooy xepp xepp loolu baaxul ak satala jàppe ci ba mu jeex loolu yàqum ndox la kaasum ndox war naa mën a jàppal nit kaasum ndox war naa mën a jàppal nit kaas bu yem ndax dafa am jinne ji ñuy wax wala aan soo dee jàpp wala ngay sangu daf lay yàqloo ndox mi moom la olof daan tuddee walangaan ndox mi day ndox maa ngi walangaan ndox maa ngi walangaan mooy jinne ji tudd wala aan loolu ab addis la jinne ji tudd wala aan moo lay yàqloo ndox mi bi mu tóoroona ñu naa ndox mi dafa walangaan olof moo moo ko def nga ndax olof mënta wax ayin googu ñaari olof du ko tudd léeg-léeg moo tax ngay dégg koy wax auzu billahi di wax onze billahi ndax u ñaari da koy jafe ci lamiñu wolof kon yàq ndox moom baaxut yonent bi alayhi salaatu salaam di wax ci hadis mu ne boo doon jàpp sax ci dex na nga tànq lu yem dem fee jàpp fa boo dee tànq jàpp sax ci dex waxuma laa nag booy jàpp ci robinet yi kër yeeg ñoom seen yooyu ngay néewal ndox mi tabarkàlla fi yar bi itam ci fiq bu ko ñëpp yar woon tabarkàlla nag ñi nga xam ne ñooy fay ndox dinañu noppalu lool waaye su fekkee ne lu waay soxla nii la koy defee duyu duy ba mu baree bari nga tuur ba mu ëpp su boobaa nag day indi geneen yàq tabarkal wa taqdimul yumna ak jiital ndeyjoor alal yusra ci càmmoñ bokk na ci ngëneeli njàpp lépp looy def na nga jiital ndeyjoor door caa teg càmmoñ booy raxasu raxasal sa ndeyjoor door raxasu càmmoñ booy sëlmu sëlmal wetum ndeyjoor door sëlmu càmmoñ booy raxas sa tànk raxasal tànkum day joor doo raxas tànkum càmmoñ moo tax bañ daan jàngal gone yi jàpp ne ndox da ngay tàmbali ca baaraamu sànq leeg ba bu bu tuuti ba ndax wan leen ne nday jooral moo gën càmmoñal bi moo tax nday joor mooy li barkeel lu waa ji def nday joor booy sol dàll da ngay njëkk a sol sa tànkum nday joor booy sol tubay nga njëkk a sol sa tànkum nday joor booy summi nga mujj summi tabarkàlla bu nday joor ba wa yajibu dana war ba tey ca bi mu jeexalee ngën a li dina war taxliilu asaabiil yadayni ràcc baaraami ñaari loxo yi loolu dafa war wa yajibu daa war taxliilu asaabiil yadayni ràcc baaraami loxo yi wa yustaxabu dañ koo sopp nag fii asaabiil rijlayni masala mi itam fuqahaa yi déggin bi ko imaamu Malik dégg bokkut ak ñoom déggin bi ñu ko dégg ñoom dañuy wax ne bu fekkee ne loxo raxas ga sunna la lu tax ci biir sunna suñu dugal ci wujjóob tànk ya raxas ga nekk sun farata lu tax ci biir farata ñu dugal ci mustahab imaamu Malik radiyallahu anhu déggin bi mu dégg fii bokkut ak déggin bi ko fuqahaa yi dégg ñoom loxo yi bi mu koy raxas moom sunna la woon ràcc ngay ràcc baaraam yi nag pour xar-xar yooyu tooy loola mu ne wujub la yajibu dafa war amaa ca tànk ya ba nga koy raxas di dugal say baaraam ci diggante baaraam ya di jonj di dem loola mu ne nag yustahabu dañ koo sopp tabarkalla lu am solo la wa yajibu te dana war ba tey taxliilu lixyati ràcc sikkim alxafiifati bu oyof fil wudu ci njàpp soo dee jàpp ba am sikkim bu oyof nga xam ne sikkim bi boo xoolee seen der bi ci biir karaw yi sikkim bu mel noonu ci ko yàlla may kooka da koo war di racc wa yajibu taxliilu lixyati racc sikkim alxafiifa bu oyof fil wudu ci njàpp dafa am ci góor ñi ñoo xam ne li leen yàlla sàkkal mooy seen sikkim du sëq lool ñaara day oyof rek borom sikkim yi oyof yooyu bu ñu dee jàpp dañ ko war a ràcc ndax ndox mi dugg ci biir dunal kasifati du caage nag bu fatt bi amaa bu dee sikkim bu fatt lool nga xam ne tabarkàlla dafa fees muy sikkim yi rafet yooyu nga xam ne moom la ñu bëgg nit yi diine yi am ko sikkim bu fees dell tabarkàlla jàpp ci lex yi jàpp ci sikkim bi ñoddi ko ba gudd lool sikkim mel noonu moom booy jàpp du jar nga koy masa tabarkàlla te it saa boo nekk sa sikkim nag di ko jekk-jekkal malaaka yi dañu ne sàbbaal ndax kontaan bu ñuy kontaan ci góor gu du sa yar sikkim ndax sikkim dafa am solo lool tabarkalla léegi-léeg nga dégg ay mbir yu ñuy jaay di wax ne góor ñu télé ñi ñoo koy jënd góor guy am sikkim du télé ci wàllu woowu maanaam ànd ak sa soxna ñu naan dafa télé nañ ko jëndal garab sàngam dégg ngeen fajkat yi tabarkalla léegi-léeg di ko wax ñaare du dal mukk ko am sikkim loolu secret la bu am solo ndax sikkim li koy alimenté di ko taal muy muy muy sëq ay ay sànq lañ jël lu nekk ci ay ay ay naqi góor loola li feeg ma nga fa di alimenté sikkim bi jokkoo bi ñuy jokkoo ñoom ñaar mooy tax góor gi du néew doole loolu ay sew-sew yi suñu borom la tabaraka wa taala gisuloo koor su ñëwee su ñëwee bu ñu mayee jigéen ne ko bul bul woor ndax da ngay nàmpal mu ne ah naa woor rek danaa ko man da ngay gis koor gi muy koor ñàkk gee lekk day tax mu manqué li ñuy tuddee lekk bu manqué lekk rek soow manqué bu soow manqué rek léegi li daan nekk ci bopp bi di toq ba tax ay weenam lay tax mu gis baaxu jigéen loolu mu koy fay su ku jigéen ki wooree rek loolu dootul am su boobaa léegi daal di ko indil benn jafe-jafe moo di day daal di nef moo tax góor itam su fekkee fu mu toll di wat sikki ba mu set wecc alarba bu jot mu watu wala dimanche bu jot mu watu fab ay lañ set di ca def ba mu set wecc su boobaa léegi moom it ra tàmbalee néew doole ndax dafa am benn xeex buy nekk digganteem ak mbir mi plus nag xasan gaag yu demee ni ko yooyu tabarkàlla góor da yar ab sikki moom te di ko peñe nag fu mu toll di ko jekk-jekkal su amee lu mu ca diw mu diw ci diw ko ca loolu ay addis la yu bare bare bare yoo xam ne tabarkàlla xëy na daañu ci mës a ñëw ci ay am solo gu bàyyi sikkim am na ko wa yajib dana war taxliiluha ràcc ko moom sikkim ba bu fatt baat bu fattul ba fil xusli ci cangaay walaw kaanat kasifa doonte dafa fatt wa yajibu te dana war taxliiluha ràcc ko moom sikkim ba fil xusli ci can sangu walaw kaanat kasifa doonte dafa fatt tabarkalla moom ci sangu sikkim bu oyof beeg sikkim bu fatt bi yépp la ñuy ràcc amaa bu dee ci njàpp sikkim bu oyof bi moom la ñuy ràcc bu fatt bi kenn du ko ràcc su ko defee kon foofu it li fi borom téere bi di jàngale mooy li imaamu malik radiallahu anhu fas mooy moom yaakaar ne rek góor ñëpp tabarkalla war nañoo am sikkim moo tax muy wax masala yooyu ci wàllu woowu war a door a tey ci faslu bi nga xam ne mooy jàngale njàpp lu toj xam ngeen jàpp ni ñu koy defee moo di nit ki su amee ndox day teg ndab li ci ndeyjooram bu fekkee ndab lu ubbeeku la booy jàpp da ngay teg ndab li ci sa ndeyjoor bu fekkee ndab lu ubbeeku la bu dul ndab lu ubbeeku mel ni pot wala siwa nekk ndab lu ubbu lu mel ni satala su boobaa sa càmmoñ lay féete ngay xelli ci sa loxo ndeyjoor su ko defee boo indee ndab li ba teg ko nga daal ni bismillah daal di def ndox ci say tënk daal di yéenee jàpp ragg sa loxo yooyu ñetti yoon su noppee nga def ndox ci sa loxo def ci sa gémmiñ dugal ci sa baaraam gallax ndiku ko ñetti yoon su ca noppee mu def ndox ci loxoom teg ci bakkanam xëcc ko mu dem ci biir ñetti yoon daal di jàpp ci bakkanam mel ni ku ñendeeku wal ndox ma ngir mu génn ci biti ñetti yoon mu daal di jëlaat ndox def ca loxoom sëlëm ci kanamam li tàmbalee ci kawaram saxe ci jëbi niñ ko miine ndax am nañu seen karam ma ngay saxe ca digg bopp ba ñi leel waaye fi ñu miin kawar saxe la bëgg a wax sëlëm ko ba fii sikkim bi yam jëm suuf sëlëm ba laal yaxi nopp ya ci wet gi laal ko ci wet gële raxas ko ñetti yoon la gën nag mooy ñaari loxo yi bu bii raxasee wet gi bii raxas wet gi bii raxas wet gi bii raxas wet gi ba li ma wax lépp tooy jëbi ba ci ron sikkim bi nopp bii ba ca nopp bële ñetti yoon ginnaaw ga mu raxas loxoom nday jooram ba ca conc la ràccaale baaraam ya ràccaale baaraam ya mooy dugalaale baaraami càmmoñam ci diggante baaraami nday jooram mu daal di raxas càmmoñ ba it tàmbale ko foofee ca baaraam ya ba ca conc la ràccaale it baaraam ya moo di mu dugal baaraami ndey jooram ca diggante ay baaraami càmmoñ ginnaaw ga mu daal di def ndox ci loxoom wacc ndox ma daal di masaa ca bopp ba benn masaa tàmbalee ko ci njëlbeenu bopp bi ñoddi loxo ya ba ca ndonga jëlewaat ko ca ndonga ñoddi ko ba mu jëlsi ci fi mu ko tàmbalee woon loolu mooy masa mu defaat ndox ci loxoom wacc ndox ma daal di masa ñaari noppam ci bitti ak ci biir bu ko neexee it ca la desoon ca tooy tooyi loxo ya la koy defee waaye su ko neexee bu bëggee def fadail ñu ma doon tudd léegi day beesalaat ndox ma to- door ko masa mu daal di ragg ndëgguwaayam bu ndeyjoor ba ca yaxu ñaari yaxi dojar ya daal di ragg ndëgguwaayamu càmmooñ ba ci ñaari dojar ya njàpp la daal di àgg mu daal di wax lii ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma ijcalni min attawaabiina wajcalni min almutatahhirin noonu lay jàppe lii lay wax su noppee su ko defee kii nag su xasee jàppee nii julli ci suba li feeg yii may bëgg a jàng xewul ci moom njàpp mii du yàqu mukk moom jàppee ne nii ngir julli suba mënoon naa dem ba timis jot ba gee jot te njàpp lii du yàqu bu fekkee lii may bëgg a wax dara dalu ko ci waaye yi may bëgg a wax bu ko ci lenn dalee njàpp lii mu jàppoon dafa yàqu da koy jàppaat ndax xam ngeen ne ay mbir su tëree ñu ne lii mooy sart yi soo teggee sart yi rek la nga defoon day yàqu loolu tax am na yeneen mbir yu ñu tuddee nawaqidul islaam li nga xam ne ni ni ñu njàpp di firikoo ci nit ki noonu la lislaam di firikoo ci nit kee association yi boo ci bokkee te ñu wax ne ku ci bokk da ngay joxe deux mille par weer da ngay teew samedi bu jot réunion da ngay teew assemblée générale ñaari at yu nekk nangam nangam yooya nga teggi leen ñoom ñëpp mbooloo ma nga séqal mbir ya mën nañoo yëkkati sa bokk ne la léegi bokkatoo ci mbooloo mi tabarkàlla lislaam it nag noonu la day wax ne boo dee jullit yii dalay war ak yii ak yii soo leen teggee bokkatoo la lay war mooy dangaa war a yeeslu boo bokkee ci daayira it daayira ba day am ñum lay laaj naka noonu ak turux tarixa boo ci bokk dañ lay wax ne lii mooy ay sartam soo defee lii ak lii ci nga bokk waaye soo ko teggee ñu wax ne la bokkatoo ci mooy bu nit ki amee njàpp am na yooyu su ko dalee njàpp la nekkatu fa mooy yi ñu bëgg jàng tey téere bii nag di laxdar yu ni mu ko jàngalee ci fiq boo demee ci téere yi nga xam ne ñooy téere yi jàngale yeneen xeeti fiq ca njàngalin ya soo ko ca demee da nga gis lenn lu ci nekk mu am ca ab tegtal ñoo tax téere bu am solo la tabarkàlla ñu ñëw kon ci ni mu ko jàngalee ngeen ubbi seen téere ci faslun nawaqidul wudu yi te jàpp ni mooy ñeenteelu fas la na ngeen ko bind nawaqidul wudu yi axdaasun wa asbaabun fal axdaasu albawlu walxaaitu walriixu walmazyu walwazyu والأسباب النوم الثقيل والإغماء والسكر والجنون والقبلة ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها wa massu zakari bi baatini al kaffi aw bi baatini al asaabici wa man shakka fi xadasin wajaba calayhi alwudu'u illa an yakuna muwaswisan fala shay'a calayhi wa yajibu calayhi gaslu zakari kullihi min almazyi wala yagzilu alunthayayni walmazyu huwa almaau alqaariju cinda alshahwa alsukhra bitafakkurin aw nazarin aw gayrihi foofu la suñu bindab tey bi yem nee na nawaaxidul wudu yiy toj njàpp nawaaxidu al wudu yiy toj njàpp ñu koy wax yiy firi njàpp ndax naqada mooy firi na naqadat xaslaha déglu ngeen ko ca tafsir ba firi mooy lu ràbbaloo woon nga dem tàqale ko nit ki bi mu jàppee dafa taqaloo ak njàpp li ni nga xam ne létti jigéen dañuy boole karaw yi ràbbale leen bu ñu ko dindee ñu ne firi nañu létt ya su ko defee karaw ya jàppalootuñu nañ jàppaloo woon njàpp li it su nekkee ci yow yii di xew bu xewee léegi tàqali ko ak njàpp la yëkkatiku na dem na yow yaa fa des soo ko bëggee da nga koy delloo si waat kon yi toj njàpp ahdaasum dafa am yu koy toj wa asbaabun ak yuy sabab toj ko ahdaas asbaab ahdaas mooy yoo xam ne bu xewee rek moom jorul waa ji naan toj naag tojut asbaab mooy daa mën a sabab tojum njàpp moo tax kum dal la wóor mooy jàppal bunt bii it nag bunt bu bari werante la ci fiq ndax ñaareel lu aalim gis ne day toj njàpp keneen ka mën naa gis ne du toj njàpp ba mu des rek tuur ndox ak magum kër walla boog magum magum tuur ndox fal ahdaas yi koy toj al bawlu mooy sanguwaay nit ki bu sanguwaayee njàppam toj na moo xam góor la moo xam jigéen ku sanguwaay sa njàpp toj na tabarkàlla borom xam-xam bu mag ci réew bi bu ñuy wax Serigne Cheikh na yàlla yokk ko wér gi yaram ak kàttan day wax ne ñi jàngale fiq de bu ñu seetlu woon danañu bàyyi xel ci sanguwaay muy toj njàpp mu ne ndaxte bu fekkee ne ku laal sa sakara sa njàpp toj na ñaare kuy jëli sakaraam di saw kon njàpp nekkatu fa ba mu sanguwaay di ko toj mu ne bu fekkee ne ku laal sa sakara sa njàpp toj na ngay jëli sa sakara ci sa biir tubéy ngir génne ko ngir tuurum ndox nee na njàpp la wax dëgg yàlla am tuurum ndox ma sanguwaay ma fekku ko fa loolu lu am solo la ci xam-xam kon albawlu sanguwaay wala xaaru ak dem dem ci xurwa noonu la ko arab di tuddee ko walbati nag léegi ba tuddee ko yeneen ndax xurwa dafa jege si léegi xurwa mooy boo masaana soxla sa bopp ci faj aajo da ngay génn kër gi génn dëkk bi dem ca xurwa faj fa aajo dellu si moo tax alxaait nga jóge ca baat boo xam ne boo ko toppee ci arab lam lay jox rek mooy xurwa waaw wolof nag ba mu ko gisee moom it daal di koy tuddee dem joor wala dem àll ba tabarkàlla ndax wala dafa am ay baat yu teggi ne yooyu buy wax moom lay jëfandikoo allahuma xanaa la du léeg-léeg rek nga dem ci baat yooyu la borom jawhar nafis di wax rek maam borom tuba mu ne léeg-léeg nga junj du leer nga junj du leer mu ne su boobaa amul benn bakkaar ci nga jaar ca baat ba ndax mu leer rek nga jàll ndax leeral rek nga ci jublu yal na yàlla fay ko war riixu ak ngelawal ngelawal moo di nit ki bu fekkee ne dafa am ngelaw lu jóge ci moom te ngelaw loolu jógewul ci gémmiñ jógewul ci bakkan xanaa dafa jóge ci beneen barab te it ànd ak wàllu xet su boobaa njàppam dafay toj mooy ngelawal wal mas yu ak ndox mu ñuy tuddee mas yu wal was yu ak ndox mu ñuy tuddee was yu balaa jeexal dina wax lan mooy mas yu ñaari ndox lañ yoo xam ne dañuy génn di ci góor goo xam ne gi mat na góor tabarkàlla kon juróom yi day sa day toj njàpp al bawlu muy sanguwaay ku ko ku sanguwaay sa njàpp toj na wal xaa'itu ak dem joor ku dem joor sa njàpp toj na dem joor nag mooy dem duus fii moo tax dama ne joor ga wala boo xurwa dafa jege si ndax léegi mi ngi ci biir kër gi waxuma la mi ngi ci biir kër gi sax waaye léegi mi ngi ci biir néeg bi tabarkalla noonu la dem léegi moo tax ñu tudde ko ñun léegi ay toilette ak yu demee ni ki yooyu war riixu ak ngelawal wal mas yu ak ndox mi ñuy tuddee mas yu wal was yu ak ndox mi ñuy tuddee was yu balaa jeexal dina la wax lan mooy al mas yu was yu nag mooy su nit ki dee faj aajo léeg-léeg mu yëg ndox muy génn ci moom ci zakaram loola mooy mas yu wala asbaabu yi sabab toj njàpp nag mooy yi muy bëgg a wax an naw mu nelaw astaqilu yu diis mën naa sabab njàpp lu toj nelaw yu diis mën naa sabab njàpp lu toj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne al aynu wikaau sahi fa man naama falyatawadda mu ne bët mooy kubéeru ginnaaw fi ngelaw mën a jóge mu ne bët mooy kubéeram bu gëmmee rek dara mën naa xew mu ne kon ku nelaw fa man naama ku nelaw su yeewoo fal yatawadda am na jàpp hadis boobu abu daawud nettali na ko loolu mooy cosaanu kon an nawmu saqil nelaw yu diis nelaw yu diis nag mu gàtt di lool léeg-léeg mu gudd it oyof léeg-léeg mu boole diis ak gudd moom nelaw waaye su xasee diis rek lu mu gàtt gàtt jàpp la toj na ñàkk diis gi nag léeg-léeg nga nelaw ci diisut su boobaa du toj waaw moo tax annawmu in kaana yasiran min jaalisin yactamidu ala mu maqcadatihi fala yanqudu li xadiisi kaana asxaabu rasul sallallahu alayhi wa sallam yantasiruuna al-ichaa fa yanaamuuna qucuudan suma yusalluuna wala yatawadda'uun rawaahu abu daawud wa muslim wa tirmisi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadis boobu dañ ci ñëwaat ci biir dañ ciy gise ne saxaaba yi daanañu toog di xaar reer te reeram daana guddee ndax xaaraale aw gan nee na saaba yi daanañu dajjant te ñu ngi toog nelaw waaye bu julli jotee dañ jóg rek daal di julli beneen addis ñëw na ne xatta taxfaqa ruusuhum am na ñun sax seen doq daana liis addis boobu axrajahu abu daawud wa saxahu addaar xutni tabarkalla kon a naw mustaqil nelaw yu diis day toj day sabab toj njàpp wal ixmaahu ak xëm xëm xëm mooy ku amoon tey jël bu metti bu mu daanu tàggoo ak sagoom ñu ne dafa xëm kooku loolu mu def mën naa sabab njàppam mu toj ndax ku xëm ñaare yu baree bari duto ko xàmmee ba xam def nga ko wala defuloo ko wa sukuru ak màndi képp ku màndi moo xam sàng ko màndal dafa doro moo xam lu mu def ci yooyu ba xëm wala boog ba màndi su màndee njàpp la mu jàppoon yàqu na ndax màndi dafay toj njàpp ci yi nga xam ne ñooy sabab toj njàpp la bokk